sëñ Saliou ban xadis nga ñu fas yéene laabiré tey jërëjëf sëñ Modou euh, xadis bi ñu fas yéene laabiré muy xadis alayhi wa sallam ne mhm. ma zahara fi xawmi riba mhm. illa sahara fihim al jununu mhm. nee na riba de du bari lool ci aw nit feeñ ci aw nit siiw ci ñoom lu du yàlla nattoon na leen euh, ndof gu bari foo gisu dof bu ŋàbbee potam wala sax lool moom am na moom am na dëkk bu jege Touba lool boo fa demee. waaw nga ko gis boo xam ñax mi moo ñax mi moo leen di <laughs> <laughs> dof leen <laughs> mu ne wala zahra fi xawmin zina illa zahra fihim al mawt. nee na li ñuy wax njaalo. wala xees bi la nee du bari ci aw ci aw nit du feeñ ci aw nit siiw fa. loolu mhm. yàlla nattoon na leen dee gu bëri. Mhm. dee ñàkk wopp dee. Mhm. mu waxaa ne wa ma bax sa xawmun alkaylu wal wal wasnu illa ma naxaxumullahu alxatru yaxni almatar nee na aw nit duñ wàññi seen i poids wala wàññi seen i lu du yàlla nattoo na leen ndox mu manqué nga xam ne si fan daan ñorale léegi sax daanaka dañuy dem ba jege ko te duñ gis dox ku taw te loolu bu ñu xoolee nawet yi léegi euh, nin sensé nga xam ne seeni da dëkk dégg ma ngay taw yow fi nga nekk dox di fa wàcc kon riba bu bari day waral dof gu bari ci ñun mhm. waaye njaalo go tasaaroo te kenn waxu ci day war a dégg bari ci ñun mhm. waaye commerçant yi ak commerçante yi mhm. nga xam ne si muur gis naa ñoo xam ne ñaari ñaari poids lañ mhm. xam loolu moo njëkk nekk maam ak doy waar ah, maam tey ji poids bi ñuy jëndee bu borom bi ñëwee poids bi ñuy jënd dañ koy génne ci rontaaw ji ndax mooy poids bu baax mooy mooy bu diis bi waaye poids bi ñu jaayee nag moom bu ñu jaay dañuy denc poids ba jënde jël poids nga xam ne poids bi ñuy jëndee dañ ciy suude ay ay ay ay lu yu diis ak ay plum ak loolu lañ ciy suude ngir bëgg mu gën a diis te loolu alxuraan da ko tere mhm. léegi it ngay meetaral nit di ko nattal mhm. meetar ko loo xam ne ba mu demee bu ko meetar waatee du mat loolu it mhm. yaa ngay liggéey liggéey bu dagan waaye ribaa ma ngay dugg ca biir ngay jaay soow rax ca ndox wala ngay jaay café foofu ay doomi café ay doomi ay këriñ ak lu ne nga dëbb def ca mhm. da nga koy gis këriñ dañ la koy jaay saaku këriñ nga yulli ko mhm. fekk pëndax ci biir mhm. waaw nga jaale pepp nii nga dem xool ndakate peppum daaw ma nekk ca taadoo ñu ngi koy def loo ci am jox ko sa njaboot yaa ngi leen di jox posen yaa ngi leen di jox lu araam muy loo xam si ne riba nga leen di jox nit ki nga meeteral ko tiise wala nga taal ay lamp ci sa place couleur yi jàpp tiise bi mu am couleur bu rafet Modou Kébé gis ko jënd ko jàpp ne nii la mel mu dem këram dakk de melu nii wala nga jaay ko bi waxoo ko écho bi baaxul waxoo ko fii du wax mhm. nga jaay ko téléphone bi noonu rek moom pour jox ko mu dem mhm. wala téléphone bi casque yi wàccaale wala bi mu wàccaalee ba dindi ko monté ci beneen batterie monté ci yeneen casque yoo xam ne si du original am du mu wàccaale mhm. loolu lépp na nga xam ne koo koo ko jaay am jullit dafa war a wattandiku lekk lu xaraam ndax Sëriñ Tuubaa na wax na ko ci masaal yi lekk lu la soob loo lekk lu mel noonu ngay jëf te ko lekk ñam woo xam ne si ñam woo dafa xaraam ba may ko yaram na xam ne sawara moo ci gën a yey mhm. te sëñ Modou maa ngi ko doon laaj keroog sëñ Lamine mhm. xoola suñu mag ñu baax mhm. euh, ñu ñi sëñ Tuubaa yoroon sëriñ Mouhamad sëriñ Mouhamad Lamine Guèye su moom la wax na ne dafa toogoon fi mu doon jàppee yoroon ab dërëm ci poosam yàlla dogal dërëm ba wadd bi mu jógee ba ñëwaat fi mu fi mu toogoon gis fekk fa ñaari dërëm xam naa bu doon am Modou Kébé moom daan lii moom yàlla ñëw na laay wax <laughs> fekk fa ñaari dërëm xool ci moom bàyyi fa ñaari dërëm yëpp nga xam nga xam ne xoola googu daal yàlla. Mhm, euh, mas na ma force ci benn place. Mhm. soriwul fii daara ji dara. Mhm. a boulangerie la ma for fa euh, lu toll ci juróom-benn fukki junni. waaye man mii ay takk xam naa ëpp na ko sax ndax ay dix mille ñu takk la. ba mën a mu ngam nii. Euh, bi ma ko waxee waa yi dama ko for wa nëbal nëbal nëbal nëbal kaañ nëbal li kaañ. <laughs> ma déet la bu <laughs> ma de. da ngaa nëbb kañ. ma ne ko ma ne ko dafa ko jox borom bu may yow defe yaa loolu la wax ma xaw ma lii defe yaa ma defe yaa mën see dolli lii ma ne ko li borom laa ko jox jox ko borom borom teq la am solo daan ma ko see jox. na ma yor wax dëgg yàlla ku li mu la ko may. dala <laughs> ko <laughs> bi maa kaañ bi nag xam naa la de yow mii. li ñu lay yónnee ci man dara du ci yegg si. <laughs> loolu moom. <laughs> loolu baax la di. sama jiwaay sama jiwaay jéem a doon bayaan rek. <laughs> waaw waaw bayaan bu noppi benn waay na ma waaw banaan bu la yóbbante ndax baax la. ma daan laaj ma ne ma la lu sama mel sama alal <laughs> muy euh, léegi ci ci wàllu riba googu tamit euh, maanaam ndax euh, dafa am laaj boo xam dama ko fàtte woon. Mm-hmm. muy li li état bi daan daan daan daan dimbalee askan wi. Mm-hmm. di jël xaalis maanaam ko am sa benn projet boo xam ne si loo bëgg a liggéey la. Mm-hmm. ñu ñu ñu lebal la xaalis. pour nga par exemple nga ne damaa bëgg a def poulailler. ñu ne la mën nañ laa lebal cinq cent mille nga démarré ko. waaw waaye nag booy fay. nangam ngay fay. 500 mille da nga ci da nga ci teg dara. waaw ndax lu boobaa loolu day day day dugg moom it ci. ci riba waaw su boobaa tamit day dugg ci. kullu xarrin jaraa naf'an fa huwa riba. Hmm. bépp bor bu xëcc intérêt rek. Hmm. donte 5 francs la muy doon baax. Hmm. fekkee état da caa bëgg. mu ne mën naa laa jox 500000. Euh, ñu société. nga xam si ne da nga jënd ganaar waaye ñoo koy bokk. boo jaayee bénéfice bi ma am ci temps nga am ci temps mhm. bénéfice ñu def ko ñetti xaaj ñaari xaaj moom moom nga moom benn xaaj bi loolu moom sërika la mhm. waaye fekkee dala ko lebal nga xam ne tey yow même boo jëyewutoon dara it ah, da nga da nga lijjanti sa cent mille mhm. leen lu ci dolli ko rek day nekk riba léegi bu la lebalee par exemple ne la amul amul benn intérêt cinq cent mille lañ la lebal cinq cent mille ngay fay léegi ci biir cinq cent mille yooyu xay na nga pert nga mu ne ah man perte nga sama yoon néew ci mhm. da nga may fay sama xaalis bu boobaa day dugg ci riba déedéet subaa dugg ci ah, riba subaa mu yaa lebon mhm. yaa lebon nga war a fay yaa nga war a fay ati bor fay waaw ati bor fay boo bu la mhm. ko mayee ahlan wa sahlan bu la ko mayu na nga xam ne foo ko mën a lijjantee fay ko da nga ko mën da nga ko lijjante fay ko ndax loolu it moom delloo ak jàmbur la léegi am na ñoo xam ne état da leen di lebal ñu ne ah état xaalisu état de xaalisu askan wi la rek boo ci jotee wala soo ñëwee ñu ñu loolu jox lekkal boo demee nga wateel ni ku la neex loolu riba bu fekkee ki la jox daa sart ne man la jox vingt mille waaye nang ma wateel nga jël vingt mille lekk nga ne sa njaboot lekk leen xaalis bi ñoo ko bokk mhm. ku dem ba ca bañ nga wateel ku la neex nga mhm. dem wateel keneen ku bokk sax moom mhm. na nga xam ne loolu riba Hmm. ndax la tax mu jox la ko pour hmm. nga wateel ko ba mu la leeree ne doo ko wateel da ko war man man am na fu mu njëkk a tàmbali da laa ñu a mat nay indi lu bëree bëri même lii ni ñu nit hmm. lebal la cinq am na foo xam du nekk riba masalan tey ji nga lebal ma 5000 ma am 5000 fay la ba noppi sama xol sedd lool ci li ma defal ma yëkkati 1000 francs joxaat la may la ko na li maa la may 1000 francs yi loolu di riba waaye nag dañuy wax fekkee waa dëkk ba loolal aadawoo mhm. subaa du nekk riba mhm. mhm. fekkee sama xol dafa sedd lool ndax leb naa si ñaan lebalu ma leb bàyyi talaa lebalu ma mut lebal ma fay la ba noppi ah sa waaye xaaral may xam ma 1000 francs yi suba loolu du nekk riba kon am nga ci intérêt waaye nekk riba waaye nag maam li sëñ Lamine wax ku ci am loo jiix jaaxa rek laajal ko moo gën a wóor mhm, mhm, mm-hmm. waaw laajal moo gën a wóor sëñ Lamine muy euh, kon xadis boo xam ne bu am solo la moom it euh, yoo xam ne bu ñu baree demee ba bari ci société bi rek dana am leneen lu bari te leneen loolu di bari euh, dara baaxu ci wala dara dëppoo ci ak dunduk doomu aadama goo xam ne si gu sell lay lay doon muy xadis bu am solo waaw muy xadis bu am solo xam nga boo xoolee mhm. lii mooy njariñu digle lu baax ak tere lu bon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni woon mhm. suñu borom sax moo ko wax ci alxuraan ne doon ngeen xeet wi gën ci xeet yi ngir dig digle gu ngeen di digle lu baax mhm. tey tere lu bon mhm. yonent bi sallallahu bu fekkee de bàyyi ngeen tere lu baax di lu bon yàlla suñu borom dana leen nattoo seet ay njiit yu amul ci yéen benn yërmande jiite leen fitnaal leen ñi gën a baax ci yéen sax bu ñu ñaanee yàlla du leen dégg te loolu li ko indi maanaam mooy seetaan lii nag eh, lislaam moom dafa bëgg li mu bëgg mooy li mu wax mooy alxuraan na ngeen wattandiku sawara te wattul ko seen njaboot. Mhm. kon mooy yow ci sa bopp. Mhm. dangay ngay fexe ba yii ñuy wax doo ci jaar. Mhm. doo ko def. ñi nga xamante ni itam am nga ci ñoom baat. ci sañ leen a sañ leen a tere. nga teg sa bakkan ci ñu. bañ koo def. nga xam ne nag loolu ko ku ne defee. dina tax maanaam mu wàññeeku. boo gisee lislaam di ko di ko di ko ñaawlu tey jii euh, lu ci ne dafa am ay duma yu ci war tey jii masalan tey nit bu fekkoon dafa def ak mooy yàlla goo xam ne dañu ko war a àtte àtte lislaam da dégg ñu ne la mhm. bu ñu koy duma bu kenn am ci moom yërmaande ndax mhm. yàlla suñu borom moo ëpp ñëpp yërmaande waaye yonent bi sallallahu dafa ni woon ñu àtte nit ngeen doxal àtte ba nañ ko war a defee mhm. moo gënal suñu boroom moo ëpp yër moo ëpp xéewal ci yéen yàlla di leen tawal ñeent fukki at yoo xamante ne taw bi du taxaw maa nit def na ko surul noonu ñu ne lii mooy li ko lislaam daan ñu teg ko daan yooyu ne teg gi ngeen ko koy teg moo gën ci yéen muy taw ñeent fukki at yu dul taxaw ñu gis ne kon loolu àq yàlla suñu borom bi moo tax mu koy def neen mhm. yoonu saa bi nee na kenn mosu koo gis mu fayu lu dul bu fekkee jalgati nañu àq suñu borom bi mhm. euh, mu euh, njaaloo dañoo wax ne day yàq société mhm. ndax day tax day yàq jigéen ñi nga xam ne ñoo ci nekk. Mhm. seenu mbaax. d'accord te loolu rek mooy capital bu am solo bi ñu am ngir mën a yaakaar ëllëg am ay doom yu baax. nga xamante ni kon dina am xeet yoo xamante ne bu ko leen xësee def. Mhm. ah day mel ni day dab dabaata rek waaye dina am foo xam ne. Mhm. ñi ñuy tudd tey bëgg ñu yegg fa euh, bu amul tawféex lool mën na faa bañ a àgg. leneen li ci des itam lislaam dafa bañ lool day bañ sax. nit koo xamante ni. dana dana naan diwa mu jur nga ci am naa table mm-hmm. <laughs> te loolu tey su njaaloo bare bare day yàq société bi mm-hmm. doo xam ku bokk ak lii day mujj maanaam sax kóolute dootul am maanaam ci ci ñi nga xamante ni mm-hmm. maanaam ñooy nit ñi mu des nag li muy waral ci nit ki koy def maanaam nit ki koy def moom ci boppam day gàttal fan te itam day gàttal wërsëg am na sax ñoo xamante ni dañoo wax ne am nañu xam-xamu kasu boo xamante ni am na lëndam guy ne ci kanamu nit koo xamante ni buñ ko gisoon xam ne diw mi day def nangam. ci nga gis ne kon loolu euh, lu am la beneen bi ci des mooy wàññi poids yi. Mhm. nee na loolu bu ñu ko defee taw bi ñu suñu borom daan xéewale mhm. dina ko téye sëñ Saali loo wax léegi lu doy loo xam ne. Mhm. la taxoon waa kër yonent yàlla bu suñu borom alag leen. looloo taxoon. nee dañ daan dañoo amoon ñaari ñaari nattukaay. bii bu ñuy jënd bii mooy bu ñuy jaay mm-hmm. nga xam ne boo leen di jaay ñu ne la ñu indi seen poids mm-hmm. muy bu baax bi bu ñu la dee jaay indi seen poids bi nga xam ne moom lañ lay jaayee mm-hmm. nga xam ne ñu bële day mat waaye bii day manqué ak sax bu ñu doon nattal nit tey lu mel nii bu doon liibaru ceeb la wala nangam buñ ne nii ba waale ci seen loxo lu bari loo xamante ne da ciy démarré nee na loolu yëpp l'islam da koy tere te loolu du am solo bénéfice bi mu lay jural deux cent wala téeméer. wala 1000 francs su bëree ba bëri. ah eh, dina la indil bàkkaar. indil la itam ñàkk barke ci la ngay def. Mhm. mu des nag ëllëg la ngay la a jànkonteel ëllëg ci suñu bor bu nga xam ne kon loolu <laughs> coono jaru ko. jaru ko déedéet amaana sax muy alal yoo xam ne doo ko fekkee ci yeneen loxo lay jaar. moo tax mu ne yooyu yëpp kon dañ koy tere mu amaat nag leneen lu mu dugal ci biir. loo xam ne lislaam daf koo bañ mooy riche. Mhm. riche maanaam mooy mooy wor. Mhm. moom lañ naan tricherie. nit ne la euh, man de kii dugub laa soxla woon nga ne ko yii kii de léegi la jóge ci tool yi fekk na dugub am na fa ñeenti at ak genn wàll <laughs> nga dem nga dem nga dem seet dugub ju baax mhm. tibb ci benn teg ci kaw saako bi li ci des yëpp nga def ko dugub ñeenti at ci ginnaaw larax yeeg yëpp na ci biir ah, nga seet dugub ju bees teg ci kaw waa ji xool ko ne ah dugub ji de rafet na yóbbu këram mhm. daal ne waa ji nangam nangam mhm. xolam tàng mu lay muulu àq nga nga gàddu ko nee na nga fis nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am koo xam ne dafa mës a faatu mm-hmm. ñuy gas bàmmeelam mm-hmm. gis ci maanaam jaan ju yéeme mm-hmm. fu ñu ko gisaatee fu ñu ko gasaatee feneen gisaat ko feneen ba ñu sonnee am doon xam-xam bu ne ni lii du jaanuk neen kii bu yeboo ñu def ko fii te dem oh. li tax mën a tàggoog moom moo ko def nee na ba ñu demee laaj lu mu doon liggéey ñu ne moom daal daraan def ku muy jaay day jël lu baax li teg ci kaw jël lu bon li teg ci suuf soo demee ba sa kër boo xoolee ne man de waa ji ndax na ma hmm. nga xamante ni répétition mës naa am ku mu fekk hmm. mu teg dugub joo xamante ni taw bi da koo tooyal mu jël saaku bi taw bi tooyal jël dugub ju bees teg ci kaw hmm. gannaawam suñu moom doo koy xamal lépp mooy nii loxoom dugg ci biir mu tooy mu ne ko lii nag mu ne ko dafa tawte mu ne ko lu ne ko lu teewoon nga jaayee ko ak ak tawteem ku bëgg a jënd jënd wala kuy ñëw nga ne ko dugub jii ma lay jaaykat dafa tawte wala soow bi ma lay jaaykat nangam nga xam ne nit bu fekkee da koy jaay. Mhm. soo ko xësee wax sikk si nga xam ne moo ci ne. Mhm. bii ñaata ñu jubóo ni ah batterie bi nag moom xam naa ni moom. Mhm. boo ci connecté lu bari day gaaw a jeex. wala daal sikk si gis naa ni. écoute bi kat nangam. wala wala léeg nag bu tàngee ba tàng moom day jaxasoo day def faw nga fay ko taalaat ko. mu gis ne sikk yi yëpp mi ngi ci. mu nangu jënd. waa yàlla nga waaw gis ne nag xam nga loolu tey jii soo ko su ko nit dee def ah. dañ naan waa ji daal moo dof kii kañ lay am kañ lay kañ lay kañ lay am bénéfice ah. fekk na fekk na doful mhm. ndax dafa xam ne loolu mooy tax àq du ko ci topp d'accord d'accord waaw léegi léegi léegi sëñ Lamine euh, jigéen ñi nekk ci marché yi nduggi marché xam nañ li may wax dangay jënd ñam bi mhm. ñëw ñam bi ji laay laay buy jub cul la di ñor <laughs> buy dugg ci cin li di ñor nga ñëw togg ko mu ne këcc waaye ah. xam nga loolu xam nga loolu fi ñu doon yi Euh, dafa am loo xam ne moom képp ku koy jënd. Mm. da ngay ñëwee kumb. mi ngi mel nit jaay la xaal rek. ak xaal waaw ak xaal ah, yow tey bu nit xaal bi ñor na nga nag bu ñor yëpp ndax moom moom mi la koy jaay moom dara wóoru ko ci. <laughs> ko ci kon yow mi koy jënd sax moo ko nangoo war ngaa xam ne ay nax la ndax <laughs> faw nga dem ba kër ga opéré ko <laughs> xam ndax weex na wala xonq na uh-huh. loolu nag moom moom dafa am njaay yoo xamante ni njaay bu kumpala rek waaw waaw xanaa léeg-léeg moom day basé wu rek ca tool ba waaw am na ci kat ñu ci jëndoon loo xam ne ka ko jëndoon wa ilaa sax ñëwee nee na ma boo xamante ni dafa dafa dafa xorom rek yanj waaw mën a mën mën a animé ngir bëgg njaayam ja <laughs> loolu loolu yëpp ñu doon maam <laughs> mën na mën na mën na ci am léegi nag beneen beneen bunt boo xam ne parce que il faut boobu day soxal jigéen ñi te Sëñ Saliou doon na ko junj léegi muy wàllug euh, wàllu ndeyale mm-hmm. ah, wàllug euh, nuñ ko si tuddee yaakaar naa xaw ma ay ay kii bay bayu ah, bàjjan xaw ma lan lan dégg nga ay guro mhm. séddaleem guro euh, ak ndawtal waaw mhm. ah, yooyu tamit ay yeneen bunt la yoo xam ne si ñu sensible la te mhm. jigéen ñi di ko pratiquer am na ñoo xam ne seen i borom kër teral ñeen ko ba tay ñu ñu gàntu ne duñu ko bàyyi am ci ñoo xam ne dañuy dem sax di nëbbutu far di ko def surtout lu mel ne ndawtal ah man de du ma ma du ma ndawtale waa koñ bi moom séquma ak ñoom dara waaye nag léeg-léeg am ñoo xam ne si moom wax dëgg yàlla mënuma koo ñàkk bañ a def ak ñoom parce que ni ñu sësee ci man wala ci famille bi lañ bokk wala yu demee noonu nga xam ne au lieu que ma lay jox nangam su ma xelwaatee nga delloowaat ma loola dimbalee ma ko waaye déedéet boo may delloowaat faaw nga tegal ma ci dara loolu tamit dugg ci ci ci ci riba ak yi ñuy tere waaw loolu moom yaakaar naa moom leer na ne moom riba la moom mm. leble waaw ngir dool dara am ci moom moom riba la moom am na ñoo xam ne sax dañ koy bind dañ koy bind kay carnet la ñuy wut ngir ngir ngir maanaam mën koo xam mm. loolu nag lu bokkul sax ak riba gi yàq gi moo ci ëpp mm-hmm. waaw tey jii koo xam ne dangay ngay xëy. lang lang bu mag. <laughs> xëy suba ba ngoon. Uh-huh. di wàññi. Uh-huh. te bu gannaaw subaa nga am coono yu dul jeex. <laughs> ay alal jàmbur na ci biir. Uh-huh. lépp boru jàmbur yi ngir rek bëgg nit ñi ne gis leen ma. yii moom de li mu fi def moom. kenn mënatu ko. nga noppi nag am handicap boo xam ne juróom benn at ngay sox ak moom. fu ne nga dugg fa di saako ndimul loolu loolu du ak du ak du ak yeewu sax. loolu yeewu sax te yàq moom lislaam daf koo bañ. tere ko. waaw eh, xew moom mën na yegg fu ne. Mhm. waaye nag moom bu ci yàq tàmbalee am. Mhm. wala fo lislaam moom di ciy génn moom. dëgg la mu sëñ Modou eh, may wax nii. Mhm. Eh, yàlla seede na ko ma fekk ci benn koñ la ma tudd. waaye bi si bi ñëw ki ko doon wax sax neloo na sama xarit lool neloo na yàlla na ko yàlla yërëm. ki ñu moo doon wax na ko diw am na doom. waaye bi mu ko waxee koo xam ne ko diw daa am doom mu ne ko waxal jàmm. man subhaana la mu ne ko waxoo jàmm waaw waxoo jàmm la ko waxoo jàmm parce que dafa tiit ndax lan dañ woon maam mu war ko ndayere woon cent mille francs mu war a joxe deux cent mille francs moo tax bi ñu ko di am kon bu ñu demee nag ba lu mel ne am doom nekk mbégte loolu suñu borom may lu bàyyi koo ci yàlla nga war cee sant war cee kontaan dem ba buñ la ko waxee tey jii euh, nga tiit dar sa gi na waxoo jàmm te loolu ah, waaw li mu waroon def ni ko fa at lu waroon moom la bu baax a baax ñi ñu ngi sarax yi sax dégg naa am na dëkk yoo xam ne sarax yi moom la ñuy joxe dañ koy bind dañ koy bind waaye nag déwuma fa moom <laughs> waaw mu ngoog <laughs> yooyu yëpp dañ koy bind waaw yooyu yëpp da ci da ci da da ci yëpp yàq rek la taxoon ñu koy def lislaam amoon lu taxoon lu ko taxoon lislaam dafa bëgg maanaam ñuy dimbali nit mhm. ak di ko jàppale mhm. ak di ko taxawu mhm. rawatina koo xamante ni xëy na loxoom jotul ginnaaw wala ah. mënu ko su xewloo ay mbokkam ñëw jàpp ci waaye loo xam ne nag leblante ci ak fayante ci am na ci sax ñoo xamante ne dañ ciy xeex. waaw ak di ak di ci fayu ak tooñ. yooyu yëpp maanaam mu dugg ci biir ay jëflante yu sew am ci. Mhm. nga xamante ne ay noonoo mhm. lay indi ak yéesale ay xol. Mhm. ak wane doole. yooyu yëpp. lislaam lislaam daf koy bañ. kon nit ko ne yéen a ngi ci am rek moo moo am solo. bis bu ne gis nit koo xamante ni day am xew. kenn jaar fa bokkal ko loo xam ne ñoom ñaar rek ñoo ko yëg. kon kooku jubluwul sax mu xam ko ba di ko bind. bu xew la woon itam fayu ko ko. jàppul jàppul lool. waaye loo xamante ni dañ la koy la koy xoolee ak di la ko ak di la ko xase am ñoo xam ne sax xas woowu rek bañ gu ñu koy bañ mooy tax sax ñu tegoo yenn yenn yenn yenn yenn yenn coono yi loolu yëpp ay fitna la yoo xam ne lislaam bëgg wallaahi natt te teg sa am sam natt boo xam ne si lu man nattub ñaari at waaye yaa ngay séentu xew mhm. ba teggi ko yàq ko ci genn ngoon ñaari at nga di ko natt. wala natt ah. nga am ci loxo it. natt moom damay laaj natt waaye dama ci am loxo dëgg la <laughs> yooyu yëpp day am li yooyu day am yàq gi aussi euh, war nañ ci war nañ ci wax de metti na lool wax dëgg yàlla euh, Sénégal neexul te euh, kenn ku ci nekk yoon nga ay soxla yoo xam ne si doy na la sëkk kon nag liggéey ba pare pendant ay at nga di ko liggéey ñëw yàq ko ci benn bis wala ci genn ngoon Euh, wëlbatiku li sëñ la muy wax ni di di lebi wala ngay ñaan wala nga naan sama góomba day wéragut mukk lu mat ñetti at ngay naan sama gomba euh, ça veut dire kon bor ya metti na yooyu niñ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci langue yi aussi bu ñu seen langue yooyu ñaare li nga ne am na ay affaires yu sew yu cay xew euh, léeg-léeg da ngay gis bu fekkent ne ñaari wujj ñoo nekkoon ci kër gi kenn ki moo am doom bu ñuy kii il faut léeg-léeg ñu dugal ci ay gaaruwaaleeg na di ko taasu ak da xew-xew jeex ak da nekk ci bëgg a <laughs> sëy ci kër gi ba léegi nangam ak nangam ak ay affaire yoo xam ne si ci seen langue yooyu lay xew ah waaw waaw ah waaw Sénégal lañ nekk di <laughs> Sénégal lañ nekk dara du fi mu fi ah, ok mu nga yooyu nañ ci bàyyi xel baax a baax baax baaxul lislaam gërëmu ko